dal li waral ñun dañoo xey ci ñew yalla dogal ñu buñ ñëwee dañuy suñu bagage wa parce que duñ nek carrément ci digg télé bi anti doon bu dé day nal ci digg télé sax bo ñëwee di wax ak moom ak ay bagage am so diké nga bor ko sax mëna jox cër bi mom waye ñom japp nit ñi ay nit quoi pour ñom nit ñi mom duñ ay nit ñom ñoy nit waye dégg fi Sénégal lepp lañ mëna défar defar mais lépp ci waxtaan la mais do ñew yow and ak sa mbolo fekk nit ñi tok ak seen bagage nga ñëw forcer bagage bu ne dang koy jël xëccok mo pour sanni ko ci auto mu tassaro ñëw ne ma takkal nga bind sa tur mu yóbbu soo dem yi tey fii ay ragal ñëw fii. macha allah li ñu a wax mooy dañoo ñëw ne jël leen seen i bagage ñun duñu laal seen i bagage dinaan lalli leen mais ñoom duñu lalli dañuy jël bagage yi di leen ko puusal pour ñu jël seen i bagage mais duñ ko nangu ci saa si ñoom dañuy ñoom dañuy agressif dañuy jékki-jékki rek door kenn yaa may dégg gaañ nañ sunu sept agents yoo xam ne ñu principal mais seen digganteeg marché ambulant yi dafa ñagas lu ko waral. dara ñagasu ko tali bi lañ soxla sunu Dakar dañ ko war defar sunu dëkk la ñoo ko moom fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee sunu liggéey fii ñoo ko moom dañ ko war a defar. yaa ngi dégg ñoom ay citoyen la comme ñun yaa ngi dégg amuñu garaat amuñu garaat maa ngi dégg waruñu siwil du yar moromu siwilam bëgg affaire demee noonu bu ko defee gars dañ koy waxtaane mu naagis mais yow nga ñëw di imposer nit ñi affaire da doole affaire da yooyu fii ragal newu fii ñi nga gis ñëpp góor yàlla lañ yaa ngi dégg daa am lu ñuy moyta lu ñuy fente rek mais fii ragal ne yeewu fii lépp ci waxtaan lañ ko war a teg fii vingt jours booy agent yi ñi ngi def seen liggéey amul benn problème kuy depuis vingt jours ñi ngi liggéey

jékki-jékki gis ay ay ambulants yo xam ne nañu ay des milliers de ambulants yo xam ku jógee de tout bord yu nekk plateau ñëw commencé lancer ay cailloux di sànni booy xeer mais devant la police ñu luñu gëna étonné devant la police police réagirul té ñu ce qu'on fait là ñun ak état bi ñokoy koy on le fait pas ñun rek cadre de vie bi nak ñun la concerné Dakar Plateau le concerné mais li ñuy def ni yëpp yëngaluñu wàññiwuñu dara ñun on va continuer ce qu'on fait Dakar Plateau dina set wecc que dafa am ay ay relents politique wala moo am leneen loo xam ne moo nekk si ginnaawam ñun loolu suñu yoon nekk si mais cadre de yi nga xam ne moom la ñu dénk commune yi on va faire notre boulot parce que ñoom booy demuñu foofu depuis vingt jours booy yaa ngi dem Sandaga tey nga yeewu suba teel dem dem si place bi gis ay nit yoo xam ne tendre la embuscade di sànni ay xeer kooku kan moo tooñ depuis 20 jours ñu liggéey bi tout le monde sait ñëpp ay témoins lañu kon bok ñun nous reculer un iota ce qu'on fait demain on a appelé tous les populations de Dakar Plateau gatsa gatsa lañu woté dinañ leen won lan moy gatsa gatsa. inshallah gatsa gatsa la nañ leen won lan moy gatsa gatsa. parce que Dakar capitale du Sénégal mais Plateau moy la capitale bi. donc pendant des années hein, comme nous ko euh, adjoint au maire waxé légui on a toujours cohabité avec les marchands ambulants. peuple hein, Peuplement dans le monde. Mais phénomène biam, on a maintenant des marchands sédentaires tabliers. Ils sont encombrés de buntu yi. Je vais dire le cas de Tchedem. Tchedem, vous avez un deuil. Ce n'est pas guenné parce que Jack bi mi ngi ci buntu ci tali bi ñu def ko marché souffrance bobu yépp pendant plus de trente ans gars di ko dund ñun de concert ak autorité centrale yi ñoo initier lien parce que ñun bëggoon nañ ko def ci anam boo xam ne xëy na entre civil ak civil lay doon mais ñoom biñ ci ñëwee wax ñu ci dañu ànd ak ñoom parce que on veut plateau taaru parce que mooy capitale bi mooy resevoir gan yi ju jugee bitim réew mooy ñëpp mais ñëpp gis nañu mobilité urbaine bi dafa xat déplacement Bir plateau jafena na gares sa pour nga ñëw plateau sax bo fi dëkkee vous nga fi ñëw pour mun vous satisfaire à tes besoins wala ñëw nuyu say mbokk wala nga même dimanche légui amatul dimanche sax plateau amatul mais dans les temps plateau dafa un havre de paix. parce que nous ñoo fi dëkk ñoo fi chaque jour 3 millions de personnes viennent à plateau jël fi sa de wat ñun on est que quarante mille habitants ñoo dëkk Dakar Plateau sur trois millions de personnes yoo xam dañuy ñëw jël ci seen wërsëg ñu ne leen nañu aménager depuis combien d'années ñu ngi fii

ragalou dëkk ragaluñu len tappetuñu leen lii ñu wax naan bu yabo japp ko seen bop nak bu yabo police taxaw setan bu yabo mais bu dee rayante la wala gatsa gatsa lañu ñu dinañ leen ko won ba mu jeex tak te duñ ci dellu ginaaw o yota oh te du du xolal du agent rek dem le maire avec le bureau municipal avec les agents ñoy génn ci tali bi and ak ñoom population Dakar Plateau pour wolé né mom moom plateau plateau nak comme niñ ko waxé li ñu dal tay ni ñing koy ñingi ñingi def li ñuy suñu liggé pendant plus de vingt jours y avait aucun problème mais lii dangay gis ni dafa am leneen lu lalu ci suuf parce que du ambulant yi kese li xew tey nii c'est pas les marchands de tablier Sandaga tolluwul noonu mais nag comme lu ñuy wax rek sàcc ndënd yomb na mais tëgg ko lu jafe la ñun plateau lañ dëkk de du ñu ay wëyu nag du ñu ay bandi ñii di liggéey fii agent yi ngay gis ñëpp dañu yor jabar yori doom di xëy di liggéey yeewu ñu ñu leen di fay 2000 francs pour ñuy ñëw di def lii ils sont c'est des embauchés et ils habitent le plateau muy initiative boo xam maire bi daf ko jël avec le conseil municipal bu yàgg genn wàll bi ay chômeurs lañu won mais les koo ci gis responsable de famille la yor jabaram yor yu dom jigéen yi yor sen jëkkeur di ci tedd di ci fayeeku salaire bu mët te fayantu wuñu salaire bu nda yu yemamaay may motax mu doxuñu ci tali bi pour ñu leen may ay 2000 de. dañuy liggéey il faut que nit yi xam ko liggéey nag ñoom bañuñu liggéey mais on ne peut pas faire de tout Dakar un marché sa way xol leen Dakar nu mel Dakar c'est la capitale du Sénégal ñu ñëw defal ñu berté ñëw defal ñu terre yooyu yëpp pour faciliter la mobilité yow nga né yow pendant 33 ans yaa ngi ci tali bi foofu ngay continuer parce que dafa yomb fayo courant fayo ndox fayo dara loolu dafa yomb.